ñu leen di balu xaq te di leen bal xaq di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñu di leen ziar ci bisu ajjuma bi di leen ñaanal yàlla di ko ñaanal mboolem jullit mu defal ñu tawfiq taysir najaax salaam saadatu daarayn bi barakati sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam comme niñ tàmme def ajjuma ju nekk rek ñu indi benn dars ci suñu téere bi ñuy wax ad-durus al-awwaliya dañuy delsiwaat tey rek di sof ca fa ñu taxawe woon keroog rek keroog ñu ngi jeexale woon ci as-sawm ñu waxtaanoon ci lan mooy koor xamoon nañu lan mooy koor ak lan moy faratay koor ak lan moy yi nga xamante dañ ko sopp ci koor ak yi nga xamante dañ ko sip ci koor ak yi nga xamante dafa yàq koor waxtanon nañu itam ci lan moy fay bis bo dok ci wéru koor ta amon ngant xamone nañu itam lan moy kaffaara xamone nañu lan mo dox différence entre kaffaara ak euh, fay kafaara waxoon nañ mooy punir kañ la nit ki war a fay yem ca waaye kañ la war a boole fay ak kafaara ci yooyu lañ jeexale woon waxoon nañu itam lan yan mooy tax nit ki dara dal ko ci koor ba pare du fay bis booba itam tey incha allah ñu bëgg dal si ci beneen tomb bu bees ñu koy wax alxajju mooy aj alquran di wax walillahi ala nnaasi xajjul bayti man istataa alayhi sabila yàlla digal na nit ñi ñu aj néegam boobu képp koo nga xamante ni man nga ko nga am ci ab yoon kenn ku ne xam na ni fan yi ñu ngi ci bis ñu ngi dugg ci bisi aj ndax suma juumul weer wi mun ca suul aqara mun ca bisam yi mujj xaj na bu wer wi gennul tay ji yalla man na def mu genn ginnaaw su ñu jëm ci fukki fan yi subhanahu wa taala di wax ci suratul fajr wal fajr wal yaalin asr ñu profito ci ak ñi fukki fan yu mujj yoyu ni ko borom xam-xam yi wax rek lepp lo nga xamanteni ni na la ci fukki fan yi nga xamanteni mo mujj ci weeru koor man nga ko dabatal ci fukki fan yi ndax amul yenen fukki fan yu ni melat ci at mi warul da ngaa duggat ci weeru koor ndax fukki fan yooyu ca bis bi nga xamante ni benn yoon rek lay am ci at mi muy bisu Arafa ca la nekk te boobu yonent bi sallallahu alayhi wa daf ko daan woor digal ñu ñu koy woor bokk na ci itam liñ ci sopp ci fukki fan yi ñu ciy def ay laa ilaha illa allah subhanallah alhamdulillah الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فسما الذكر يويو سبنا نيو كاي داف تي بيس ييغا خامتيني موم لا نيو دوغ موي فوكي فان جيك تي ويرو تباسكي ما هو الحج انا لن موي حج الحج في اللغه القصد وعند الفقهاء قربة يلزمها الوقوف بعرفه جزءا من ليلة النحر من أنا لن موي أج الحج في اللغة بني وخي أجبات اللغة العربية لمي تكي موي جبلو جبلو جبلو فن لپ لوغا خامنتيني جبلو لا رك جبلو تي مين مير رك دنجي تودي الحج في اللغة العربية واي فكنتني فين كاي جيفانديكو تي بونتو يي ني تولو دي فق نون كاي واخ قربة يلزمها الوقوف ak jege sa borom la goo nga xamante ni doomu aadama bi julli bi koy jege borom te jege borom googee dafay taqoo ak taxawaayul arafa taxaw arafa ci kañ jus an min laylati lenn ci guddi gi nga xamante ni mooy guddi tabaski bu nee suba la guddi googu ko mooy guddi tabaski kon sa borom la goo nga xamante ni dafay lamboo ak taxawaayu arafa ci lenn ci guddi gi nga xamante ni mooy guddi tabaski moo tax ña nga xamante ni dañuy aji màkk bu ñu nee suba la tabaski muy juróom-ñeenteelu fan ñu koy wax yowmul arafa fa la ñuy nekk ba julli timis ba pare nga xam ne commencé nañ dara ca guddi googu ñu dog fa jóge war a delluwaat biir biir màkk aj googu itam dafa am ay farata <coughs> maa hiya faraidul xajj mooy farata yi nga xamante ni mënta ñàkk ci aj ki nga xamante ni daf koy aj mu def ko dafay aji màkk mu def ko nga xamante ni bu ci defulee benn wala mu bàyyi ca benn ajam baaxut ajam baaxut wérut yooyee faraidul xajji faratay aj ay arkaanuhu mooy euh, pied yi nga xamante ni moo téye aj bu fekkonte ni mbaar la ñaan jiñ yi nga xamante ni ñoo ko téye ba benn jiñ bu ca dañee wala jiñ yëpp dañ mbaar dootu fa nekk allati in turika kulluha aw waxidan minha batala yooyu boo bàyyee yépp wala nga bàyyi ci benn aj ga wératul yàqu na yàqu na yàqu goo nga xamante ne lam yujbar zalika zalika al fardu bi dam mu ni loolee nga bàyyi dafay tax euh, rey ab gàtt du tax nga mën koo nga mën koo réparer ndax am na yoon bu ko doomu adama defee ci biir aj gi dañ lay obligé pour nga rey ab gàtt pour mu réparer ko comme ni ngay defee ci julli am erreur boo def ci julli mën a def sujuut mu réparer ko aj itam am na yoo ciy def mu réparer ko mais farata yii loolu bokk ci benn farata boo ci bàyyi rek da ngay xaarat aj ak déwén nga mën koo nga mën ko aj kon hadiyu bi saatin lil kaaba xat yi boo nga xamante na nga koy rendi jàmmoo ko sa borom saraxa ko du ko defar mu ni faratay aj yooyu nag wax yi arbaatun ñeent rek la ba ci jiitu mooy al ihram mooy nit ki armal armal nag mooy fa ngay summeeku yére yi nga xamante ni yére yi ñu ñaw lay doon sangu daal di jublu ci commencé nag aj loolu la ñuy tuddee al ihram foofu nga yéenee sa aj boobu mooy bi ci jiitu ba ci topp as-sa'yu bay as-safa wal marwa kenn ku ne xam na montagne moomu ñuy wax safa ak montagne moomu ñuy wax marwa nga baagante ko juróom-ñaari yoon loolu itam ci faratee aj la bokk boo bàyyee ihram boo ihramul armanul ci aj manatoo at moom moom meneen at ngay ajati bi ñuy dox safa ak bu la rawee defoo ko mu ne at beneen at ngay ajati waaye boobu at moom mënatoo ko aj parce que bàyyi nga farata beneen ba bokkaan na ci alwuquuf bi arafa nga taxaw arafaat ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax ne alxajju arafa aj dëgg dëgg dëgg dëgg bu ñu koy wax arafa tax ñuy wax dañuy aj képp mooy arafa mais bu ñuy wax aj dëgg dëgg dëgg arafa tax ñuy wax te bu ñëwee tey la juróom-ñeenti fan tey la juróom-ñetti fan nga xëy dem nga nga nga dem fa nekk fa ba julli timis ba pare ba julli gee ñenn ci dañ fay nekk ba fajar ñu doog a retourné waat ñëw ñëw biir màkk kon loolu la ñuy wax arafaat ñu xam ko fii ci bisub juróom-ñeenteel mu baax a woor lool boobu mooy ñetteel bi ginnaaw armal dox safa ak marwa wuquuf bi arafat arafaat xabla al fajri lu njëkk fajar ak euh, bis bi nga xamante ni mooy bisu bisu bi ñuy loj loj xat yi mooy bisu fukk nga nekk fa avant fajar gi nga jóge fa nga xam ni boo demee boo jullee fa su fajar boo jullee suba ba asamaan set jant bi jóg ci ngay commencé ci la ñuy commencé loj seeni xat yi min nax nahri bokkaat na ci yooyee ab tawaaful ifaada mooy wër gi nga xamante ni dañ koy wër kaaba gi juróom ñaari wër yooyu ñu koy wër mu yii mooy euh, ñeenti yi nga xamante ne mënta ñàkk ci aj màkk mooy armal dox safa ak marwa taxaw arafat ak wër gi ngay wër kaaba ga juróom-ñaar yoon mu yii benn bu la ci raw rek mënatoo koo réparé déwénati rek ngay ajaat kon yooyu lañuy ñuy tuddee faratay bëgg la faram fàcceel nag faratay aj yi benn par benn benn bu ci nekk ñu xam lan la wund lan mooy ixraam al ixraamu niyatul xajji al muqaaranatu lil fi'li mooy nga yéenee aj boo nga xamante ni dafay lënkaloo ak jëf ci su meeku nga sangu sol sa yére yi ngay aje commencé nag dugg ci loolu loolu la ñuy wax ixraam mooy yéene dugg ci aj gi mu lënkaloo ak jëf ci ndax su ma toogoon fii sama kër ni dama yéenee aj summi samay yére sangu farata sol yére yu ñu ñawut taxul ma ihram ndax mu xaaraneel fi ndax dugg commencé wu ma taxaw ma nekk mu barab boo nga xamante ni mën naa commencé dugg ci sama aj looloo tax faw nga lënkale ko ak commencé jëf ci lu mel ni kalmas yi nga xam ne nga waaj nga ba pare yéene commencé dox jëm ci ponk aj yi tawajjuh ila makkati daal di jublu makk ndax la ñuy wax am la ñuy wax ay miqaat ay barab yoo nga xamante ni zone bu ci nekk bu ñu ñëwee fa la ñuy armale pour mën a continuer awil xawlu kat talbiya wala yow mi tugg commencé wax labbayk mooy talbiya wuyu sa boroom ijaaba wa afdaluha mu ni bi gën ci talbiya yooyu nit kiy wax mooy yi muy wax labbayka ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax da doon wax noonu labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk inna alhamda wannicmata laka walmulk la sharika lak labbayk wuy si naa la yow sama borom allahumma labbayk wuy si naa la yow sama borom labbayka la sharika lak wuy si naa la duma la bokkaale kenn kenn waru laa bokkaale kenn inna na naka cant wa nicmata ak xéewal laka wal mulk yaay borom ak nguur yaay borom la sharika lak kenn waru la bokkaale mu ne jamono bi ngay dex loolu nag yastaxdiru inda ngay teewlu jamono bi nga xamante ne ci ngay nekk di labbayka di wax allahumma labbayka xam ni yow fii nga toll juste nag annahu yuhibbu mawlaahu yaa ngi jàkkaarloo ak sa borom di sànni ay kaddu mu lay déglu ndax yaakaar ni wuy si naa la kon yaa ngi wax ay kaddu jàppal ni yàlla ngi yaa ngi jàkkaarloo ak sa borom di wax ay kaddu mu diku kon da nga wara tewal sa xol wala yad hak muni bo ci nekké bul yaakaar ni da ngay kaf bur ré wala yalaab kenn du fa nekk di di fo kenn du fa nekk di reetaan moto yeen yonent salat salaa salaam kep ko nga xamanteni ak nga kafoo fa foowoo fa def ko ni nga ko war a defee da ngay genn ci ag ga melni ni comme na nga juddoo woon ci sa ci sa biiru nday nga xamne da set wacc ak bakkar man xaj falam yarfus walam yafsuq xaraja min al mi wala yawmi waladatu ummuhu amul deseetoo benn bakkaar kon loolu mooy ixraam kon ñu ñaanal mbokk yépp yàlla nañ yàlla wërsëgal ñu ziyaara ji baytullahi al xaram dem mot la ji suñuy farata aj mag yàlla defal ñu ko defal ko mboolem jullit